salaamaaleykum wa rahmatullah ahlan wa sahlan allo professeur maa ngi leen ñu di leen ziar leen jox seen wàccuwaay j'espère que ñëpp a ngi ci jàmm maa ngi jégalu ci guddee bi de vraiment maa ngi ci jégalu bare bare bare alors euh, tey ñu ñëw indil leen euh, huile essentielle citri anglais di ko wax citri français di ko wax euh, arbre à thé incha allah waaw donc bu ñu misé ci euh, faju ci huile essentielle donc euh, tey ma leen citri nga xam ni baax na ci infection buccale mooy problème bëñ yi ak gencive yi et tout ça gémmiñ voilà gémmiñ bu am infection ak euh, infection ORL tamit ak ak infection wu cutanée ay der donc euh, ñi def radiothérapie aussi mën nañ ko utiliser avant la radiothérapie pour prévenir euh, lakk-lakk yi ñuy am donc euh, dañ koy utiliser aussi pour pallier ay yenn jafe-jafe gynécologie gynécologique donc voilà comme ni ma leen ko waxee tamit day traiter ay problème mu der yu bëri waaw huile essentielle dafa riche en molécules actives donc elle donc moo tax mën nañ koo utiliser sous forme de massage bu fekkee da nga am coono en cas de grande fatigue coono bu métti dans ce cas da koy euh, diluer ak huile végétale donc mën nga jël euh, d'olive par exemple mais booy mélanger da ngay jël euh, poudre huile d'olive nga def ci quinze gouttes bu dee mag la voilà bu dee xale la tu prends ñaari poudre huile d'olive nga def ci quinze gouttes d'huile essentielle maa ngi leen ko doon expliqué mercredi passé moom dafa am compte-gouttes euh, donc da ngay duutal rek muy toq bu ko defee ngay euh, ngay compter alors toujours en application cutanée c'est intéressant très intéressant même pour ngeen soulager seeni infection ORL ak ay problèmes respiratoires comme en cas cas de bronchite wala grippe donc euh, mën ngeen mélanger euh, comme ni ma leen ko waxee sànq avec euh, de l'huile végétale ngeen maase ko ci longueur colonne vertébrale vertébrale en plus bu ngeen amee ay problème de de sommeil de rhume allergie voilà euh, tamit mën nañ mën nañ koo utiliser aussi aussi pour ay maux de gorge voilà bu ngeen amee ay euh, kii kii yuy metti gorge bi baat buy metti donc euh, deux gouttes rek voilà nga jël deux gouttes rek toqal ko sa suufu làmmiñ doy na sëkk voilà donc pour euh, en cas de de de si toutefois bu ngeen ko comme mën bu ngeen ko commencé utiliser euh, te xamuleen lan la nous sommes là mën ngeen ñu poser euh, toutes sortes de questions. donc tey maa ngi leen indil huile essentielle citri anglais bi ko wax citri français bi ko wax arbre à thé donc moo xam ne. Euh, huile la boo xamante ni dafa indispensable en aromathérapie comme ni ma leen la expliqué l'autre jour l'aromathérapie mooy euh, euh, traitement les le traitement par les huiles essentielles donc moom elle est très polyvalente na nañ ko ci ay ferñeentam yu bëri macha allah comme dans la dermatologie donc euh, xam naa ne euh, xamu leen encore huile essentielle à à thé mais bon je vais dinaa ci jox ay tegtal donc euh, dafa am un célèbre navigateur bu ñuy wax James Cook donc moo ko découvrir en Australie donc moom da doon utiliser feuilles d'abord pour confectionner ay boissons yoo xamante ni comme waaw comme du thé waaw d'où son nom moo tax ñu tuddee ko arbre à thé voilà donc euh, indigènes yi tamit dañ ko déjà pour traiter ay góom ay infection euh, donc euh, aussi ay ay aussi voilà en plus euh, dafay jouer un rôle boo xamante ni c'est notamment antiseptique et antibactérien voilà donc euh, pouvoir am moom yemul foofu rek ndaxte day euh, stimulant la voilà radioprotectrice la et c'est décongestionnante maa jégalu ci dund bi nag voilà donc. voilà huile essentielle citri donc euh, euh, comme ni ma leen ko waxee rek dafa baax ci euh, der problème mu der comme ay xasan xasan voilà et jeunes yi nga xamante ni tamit c'est lié à l'acné waa ñu ngi am ay problème acné herpès wala encore eczéma donc moom efficace na trop tamit ci euh, application boo xamante ni après bu la bu la yoo màttee wala ay ndëg yi jam la nii donc baax na ci trop et puis euh, ñi am tamit euh, peau grasse dinañ buñ fa ñamee moom macha allah dinañ ko dinañ ko apprécier bu baax a baax donc ñi am ñi am problème de peau ay peau grasse mën nañ ko def ci seen crème ou alors mélanger ko ak euh, beneen huile végétale en plus en cas de ay maladie yoo xamante ne problème bopp cuir chevelu wala ay xasan xasan yi nekk ci bopp par exemple ay karaas yooyu yëpp da koy calmer ba pare euh, wéral ko voilà sa bopp buy xasan wala nga am ay problème mu karaw yu kii moom la wax euh, l'huile de la beauté waaw huile essentielle citri bien vrai que mën nañ ko ingérer mais tamit c'est utiliser plus euh, à l'extérieur qu'à l'intérieur donc euh, bu leen hésiter aussi bu fekkee am ngeen ay problème mu bopp ah, ngeen ajouter quelques gouttes seen shampoing voilà wala ci masque capillaire bi wala tout simplement ci diw bopp bi ndaxte euh, kii aussi vertu antibactérienne yi mu am mooy euh, moo tax ba ñuy def euh, cosmétique dañ koy dañ koy euh, favoriser lu bëri macha allah ah, en plus anti-inflammatoire yi mu am donc moo tax mën nañ ko utiliser comme bain de bouche comme ni ma leen ko doon waxee sànq donc en bain de bouche da ngay jël tout simplement un demi litre d'eau nga yokk ci. Euh, dix gouttes huile essentielle doy na sëkk bu ko defee nga def ko nga def ko en eau chaude ndox bu xaw a nugg tuuti voilà dina xaw a sa tuuti rek mais pas pas tellement <laughs> di nga ko sentir en plus dafa am euh, odeur bu neex mën nañ ko mélanger aussi pour euh, ak ak sa dentifrice ak sa def de pâte dentifrice en cas d' inflammation buccale et ay euh, aussi problème des gencives voilà ay caries et tout ça ak ay mauvaise haleine voilà aussi en cas d'infection intestinale de type mycose donc mën nañ ko utiliser voilà en voie interne donc euh, li ci gën a gaaw mooy bu fekkente ne ñemewoo guub bi bu baax mën nga ko toqal ci kuddu lem deux gouttes rek doy na nga toqal ci kudd lem nga jàllale ko ou bien alors nga toqal ko ci suuf làmmeñ bi deux gouttes voilà dans ce cas moom moom moo moo gën a gaaw parce que day mel ni intraveineuse tout de suite lay lay agir voilà donc euh, mu ngi noonu daal loolu laa lay indi doon ci huile essentielle baax na ci der baax ci peau baax ci euh, problème gynécologique des mycoses et tout ça donc macha allah ay ay ay ferñeentam daal <laughs> en grosso modo yooyu laale leen ci euh, yooyu daal laa leen ci jox incha allah képp koo xamante ne nag comme ni ko waxee rek commencé nga ko utiliser euh, boo comprendre ak bu euh, même bu fekkente ne déjà am ngeen ko voilà te xamu leen pour lan la yenn saa koy yor pas mal de fois day am ñu koy yor après ñu photo envoyé ni ma. huile bi yor naa ko je qu'est-ce que avec donc euh, si toutefois vous l'avez rek mën ngeen euh, poser seen question euh, y a pas de souci incha allah dinañ leen tegtal nu ngeen koy war a mën a utiliser pour bénéficier wu ci ferñeent yi ok maa leen di jaajëfal lu bëri barakallahu fiikum